ginnaaw bi nga xam ne rek euh, taw bi daal nay bari lool ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba euh, ba tax na rek askanu Kër ñoom ñooy ñi gën a yëg rek li nga xam ne moo di ndox mu bëri moomu ndax li nga xam ne moo di bassin ba daal dinay toj rek dugg ci mbedd yu bëri ci biir Kër ba ci seen biir kër yi sax ba tax na askan wa ñu ci bëri rek daal dinañuy génn ci biir kër ya daal di uti rek fu ñu jëm ñi nga xam ne mënuñu ko nag ñi ngi bi ci biir ndox mi di Serigne Modou Diop euh, Diaobé Euh, muy sàkku rek ñi daal di jëlee li nga xam ne rek moo di bassin bi foofu nga xam ne rek moo di ci kër biir kër ñang euh, ndax du nekk waaye bi nga xam ne rek war na fa nekk euh, ba tax ne rek askan wa ñoom itam daa topp si ginnaawam rek di sàkku rek ñu jàppale leen daal di génn li nga xam ne moo di bassin bi si biir kër ñang ndax sonal na leen lool. mépp muy tuyau yi branche bi moo xam bépp société bu mën di doon moo xam bépp structure bu mën di doon ak foo nañu xam ni fii ñu ko indi yàq na fi yàq bu mag a mag te it fokk ñu wax dëgg mooy population bi ne fii ndox mi nga xam ne moo dugg seen kër yàq seen matériel yàq seen alal yàq seen i jur yàq seen njaboot ndox moomu ci li war dëkk bi la ñëwee ñëw ci bassin Kër Ñang bi ñëwoon nañ ci nag jël ci ay matuwaay am yuñ fi doon def ak yu fi waxoon muy alarme yeeg yooyu ñu def kon ni dañuy kii rek def ñu war def yàlla tawaat na waxoon naa leen ko ni leen lii du ñuy jël ay matuwaay ci benn semaine dañoo war bu hivernage jubatee lu mat 6 mois balaa màggal gi jub ñu tàmbali seen i travaux ñoom ñi nag ñoo woo ñu taxaw ko gis ngeen bassin bi tey defaat na lu raw li mu defoon defaat na lu raw li mu defoon ci une semaine kon nag am na tam ñenn ci population bi ñoo xam ne dañu wax ni euh, ñaawlu nañ inondation mel ni am ministère de l'intérieur tegu fi tànk ak ñenn ci kilifa yi waaye nag sëriñ Serigne Mountakha moom ñi ngi koy gërëm ci basan ndax yabal na fi Serigne Cheikh Lappé ba na yenn jafe-jafe yenn yenn yenn mbir yoo xam ne ñu ngi ko doon commencé kon nag population bi tamit muy fii Touba Kër Ñang laay njëkkee fi nga xam ne fi la lépp daje bassin bii ñu fi def dafa ëttanu ndoxum Touba bassin bi ëttanu ndoxum Touba li ko sëñ Saliou defit ndoxum jumaa ji la woon mais ëttanu ko liñ ci branle ci résidu moo ëpp doole nii mu mel fii Kër Ñang nag ndox maa ngi génn ci biir canal yi di demaat fi nga xam ndaamaatu 1 ndaamaatu 2 sura Gede kuy mbind li nga xam ne mooy yoonu daaru fi nga xam ne mooy mooy mbaarum sëñ Fallu fi nga xam ne mooy tóokóoru sëñ Cheikh ba sax am nañu jot a génn ak fi nga xam ne dégg nga ko mooy sura ak fi nga xam ne mooy euh, bassin bassin kër jàkkee sëñ Saliou yëpp ñu génn yéen a ngi ñuy gis ko gis ngeen te it nawet bi bàyyeegul ba léegi kon nag kon nag état du Sénégal nañ ñëw wallu askan bi ci lim gën a gaaw bii nag li ci gën a gaaw mooy mobiliser pompe yu du jeex mobiliser ay ay ay sapeur pompier yi du jeex fii ci Touba mobiliser ñi nga xam ne danga la koom ñooy yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum ndox ñu ñëw ba fexe génne nit ñi ci jafe-jafe yi nekk mais jamono yi ñuy wax ak yow mooy mm-hmm. màggalu daaru bu njëkk gi fa lañ jógee nii màggal bu njëkk mm-hmm. ndox mi taw na fi dem fa la ñu fekk ñu mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaye nag fii moom uh-huh. bassin bi ci boppam bu ñu ko fi mënee tuxal sax tuxal ko fi jëlee ko fi mooy li nga xam ne mooy liggéey xoon naa ko au début waxaat naa ko bi ñu jubli neewoon naa leen am na école yu ñu àbb yoo xam ni euh, préfet na ko ñu def leen fa waaye yaakaar naa jot na nag ci màggal Touba kër yi sëñ Touba yi nga xam dañ koo tëj mu yaatu lool rëy lool te bari ak kër yi nga xam dañ koo tëj ñu ñëw waxtaan ak askan wi jéem leen a génne yóbbu leen fa ba ba li nga xam ne mooy nawet bi jàll boo gisee kër gële ma lay joxe ne kër gële nga gis ko ne am na maire bu fa boo xam ni ak njaboot boo fa nekk ni ndox mi ëpp na suñuy suñuy suñuy suñuy bopp woo naa sapeur pompier pour ñu ay ñu mën a ñu ñëw génne leen ci biir ndax bu ñu leen génnewul mën naa andi incident parce que mënuñu sax jënd lu ñu lekk noonu tam la amee fële nga xam ne mooy yoonu. yoonu yoonu daaru. am fa nga xam ne mooy bassin puuf bi. fa nga xam ne mooy puuf bi dem naa fa. puuf di fees na bay génn puuf di fees na ba ndox ma di génn ba ngay jaar ci buntu ba ak di jaar ci rigol yi di génn fa nga xam ne mooy daaru rahman nag feesagul waaye dem naa fa démb ba xool naa leen kon nag euh, ñi ngi wax le ministère de l' mm-hmm. na ñëw xool situation Touba ni mu demee. Mm-hmm. ba xam ne lii moo fi am parce que tamit nañ leen di wax réalité yi am réalité yi am mooy buñ ni problème mu Touba réglé nañ problème bi ndoxum Touba réglé nañ parce que dégg nañ ñu ne ndox mi réglé nañ ko problème mu Touba réglé lañ ko déedéet bañ koy wax ba jëm si yàlla tey population bi ñu ngi ay jafe-jafe waaye seen i xol tàng na xat nañ sonn nañ am na lu leen métti ñu ngi gërëm ñëpp na fi wax na fi mais lañu wax dara loo xamante ni sotti na amul wax naa ko gouverneur fii barki dem bi ñu ñëwee nee naa ko li ngeen def benn du solution canal bii li fiy ñëw dafa bari lool ndoxu dëkk bi attanu ko parce que ma wax la tey loo loo xam ne ñun ñu bari xamuñu ko ci canal bii taux yi ñaari bunt bii nii ñaari taux yi fi jaar benn bi trois trois cent quinze la benn bi quatre cent bi jaar bi jaar trente kër nango mooy taux six cent di yóbbu di yóbbu foo xam ne mooy pof di ak daaw rahman nga xam ne ni taux 600 bi moom mooy alimenté pouf bi benn taux koy alimenté de mhm. bassin pouf bi 400 bi ak 315 bi ñoo alimenté bi ngay njëkk a jot mooy boo gée mooy daaru rahman foofu bassin boobu ñoo koy alimenté ci canal yoo xamante ni tey day génn nit mën na jaar biir dox bii jugee ñaari étage bii jugee fii ñi fi dëkk sonn nañ te maa ngi lay waxaat ne même génn bii mu génn bi mooy ñaar yoon mu génn ko ci semaine bi mhm. dana génnaat bu tawaatee kenn mu mënu ci dara bassin bii dañuy ñaan lillahi wa rasuli ñan ñu ko fi jëleen ngir yàlla su dee mën naa nekk nañ la ko jëlee moom mooy solution mais pompe van def nañ ci lépp du jariñ dara na fee jariñ dara fii amul benn solution benn solution bu fi taxaw amagu fi mu joob joobe lañ ci xam ne moo nekk ci dëkk bi ñëw fii taxaw di ñu taxaw chaque jour mu fi lay xëy lay gont ba digg ñu bi effort fu suñu kàddu gi ñu ko fa loolu moom am na te gis nañ ko mu koy def def bu mag dem ci sëñ Muntaxa dañu àggee ba gis ko of bi expliqué ko li nga xamante ni euh, moo am ci bassin bi sëñ bi ne daan ne musuma xam ne de day génn bay lor ay nit waaye waaye comme que noonu la demee incha allah dinaa ko saafara lii ñoo ko nangoo ci làmmiñu sëriñ Muntaxa ma tëdd mhm. dinaa ko saafara googu na ba ko waxee gis nañ ci ay solution ndax boobu dañ gis waa ONAS saa yu taw dañuy ñëw ci bunt bi commencé nekk ci bassin bi di fi fanaan buy taw même bu xii na dañuy ñëw gaari bii nag bi mu génnee mooy ñaari yoon yi mu génn pour seen bi moom gisaguñ sëñ bi mais ñu ngi waaj mobilisation pour gisal suñ Seex Lappé nag ñëw na fi jooytu nañ ko suñu suñu ay suñu ay jàngoor wax nañ ko ko waaw wax na ko neen dina ko wax suñu Muntaxa waaye nag bu tey ñun tamit danañ def benn mobilisation boo xam ne danañ dem sëñ bi rek gis ko ndax man jàpp naa ne loolu mooy diggante yow mi nga xamante yàlla nga dem ci sëñ bi ndax lii sëñ Muntaxa rek moo ko mën a saafara mais du gouverneur du préfet du sous-préfet